auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bokk yi xasida gi ñoo ngi ko def jëme ko ci ahlul xidma nga xam ne ñooy liggéeyal jumaay sëñ tubaa ji tàmbalee ko bayitu sëñ tubaa wi mu ñaanoon sunu boroom ci jumaam ci dëkkam bi ñu tàmbalee ko woy wi di ñaan yàlla def ci barke xaraf wu nekk ñu def ci aw bayit bismillahi rahmaani rahim

aashu kama aashu sëriñ bay mustapha xarfan bi xarfin xat xafaahu wa kafa lem ak limub tàndarma ak fóoyteef yu doy la waa jumaa ji taaj ña lay guux ñaa di yey basaab daqaar yu neex a neex yu mën la jeex lañ leen di taajal ci barab yu féex a féex haada yëgal ne yii murit ñooy gaayawan shibran bi shabrin bamba moo man ñafi wan daw teel a gën xeñtu di bàmbaag waa këram mbaa lu ko may ëllëg xañeef la ay ngërëm alfun ulufun maa alaaf ci njariñ bàmbaa ko am léppam njariñ la nan xariñ raayew gënam raayew gëni ñoñam itam ma ngay foloote yàlla moo ko jóori ndam yaa man ida yaqul li amrin kun yakun ñooñ xitma nañ daje ngërëm ya gën a gën gaaw leen a xéewal te gawnu nun itam ak xéewal ak njariñ yu rëy tofal ci ndam ahlal iradati wa ahlal xidmati yàlla na leen bàmba gërëm maa minnati làkkub jumaay sëriñ bi yéenay ñag bi yéen ñag leen na ñag jumaay sëriñ bi an ruyun mafatixal jaamici qiida lakumu xustum mafazatan lada cheyxikumu daw leen ak daw gestu warul ci yéen ndaxam kuñ saytuloo jumaa ji rëy na lool cëram niltum muraadakum ku santul war na leen ku sant yit yéen war na leen kon yeewu leen yaatoog toog lewet yaroog fulaak jom yéen la war ñépp la war ngeen raw ci yéen booleeg sawar ahiin ku leen kañul xamul ki ngeen nexal mbaa xol bu gum ko waral mbaa bu gisul barkeb sëriñ bi yar na leen gaw wet gu ne bu leen taxaw bu leen ragal du ngeen gone roytee fi yoon wi haakumu seen maam yala ñoo ànd nag sëriñ bi fees dell ak fulla kàngam yu xam-xàmmee te fees dell ak ngorit jaamoog liggéey rekk lu ñaaw raxul xarit taaru te teey yiw boole ca pas-pas yu rëy ci ron sëriñ bi seeni ndab sëriñ bi doy waa meew tawub seeni ngëneel moo xëy saxal yéen seeni pas-pas ñee di ñooña maayaxal aslan la leen sëriñ bi tarsiix yeewu leen dégg ñu leen wéy xam ne tànnuk sëñ bi ngeen aslan la leen sëriñ bi tarsiix yeewu leen dégg ñu leen wéy xam ne tànnuk sëñ bi ngeen lawlaa ku mu jumaa ji war maal ko jafe ku jéem a xañ ko wor ma ngeen ne ko du fi kalla bu leen kenn ger ndax am du yomb sax ndax sëñ bi suur na leen te aar na leen ci nax honhoy ku leen jéemal safaan dëkk nga mbër biraasu man baarazani la bamba tër biraasu man baarazani biraasu man yu baarisul muntaqimal baari zaman taalub sëriñ bi dootu fay yàllaa ko taal bërëx na it leeraay bi deesu ko misaal ëllëg ca biir mbooloo ma ay ndëppi wurus lañ leen di xàmmee ku di am noonu dana rus leblente ak yéen yiw ndaxam moo gën a wóor leblente ak yéenub safaan bi laa xuróor man sàkku naa ngir yàlla ngeen limaale ma ci seen kuréel dontale man yittewu ma sabba aleykum rabbukum ay xéewalam yéen ahlu xidma fuuyu leen jot ngeen ngërëm waxtu wi seex yi muntaxaa xëy seet si leen seet seem gi moo seeree ngërëm ya fil yaqiin nil tum muraadakum sabar tum bay ngërëm xëy yéen dikkal leen yu bawoo ci kuñ gërëm teewaayu ji jëmm yëgal moo wuutu tey teewaayu gaa ña jiitu saaxi maala day teewaayu ji jëmm yëgal moo wuutu tey teewaayu gaa ña jiitu saaxi maala day subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin bi xalami abdillahi jaxumpa al fulki gulaami cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir rahimahullahu taala